loolu ci loolu laa jaar xam lan mooy sama mission ci àddina xam ni ak lu munti doon rek fii dama fi ñëw pour baax dama fi ñëw pour liggéey fi sama àjjana dama fi ñëw pour liggéeyal suñu borom donc n'importe quel métier bu ma mën a def muy musique bi donc après bunt bu ma ci am rek li may def mooy tu taar mooy ut mujj gu rafet mooy nekk ci diine ji dooleel li nga xam ne mooy diine ji bu baax xam naa ni fa lañ jëmi parce ñaanu ñu yàlla yàggu trop ci musique bi